arbitre bi sifflé na Mamadou Ndiaye Thiaka Mamadou génn na def na benn sortie arbitre bi sifflé waat na Mamadou Ndiaye féete la càmmoñ Thiaka Faye féete la ndijoor Thiaka jàpp na ci loxo bi Thiaka Faye fii ci stade Diop Iba Mar les arènes moo ñu fi woo mise bi 3 millions la génne waat na ko lu nar maama daa nar a génn Mamady daa nar jël 3 avertissement wala déet Mamady am na 2 avertissement. ndaysaan Caaka Fay Mamadi Ndiaye Mamadi bu jëlaatee beneen avertissement ñu disqualifié ko jox victoire bi Caaka Fay ndaysaan ñu ngi noonu Caaka Fay Mamadi ña ngay bëree Caaka nga koy bëmax day génn da koy buux mu génn day génn avertissement jeex na ndaysaan caaka daan na ko caaka am na ndam ci kaw Mamadi Géant bu bari ñi dem na final